alaykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu ci nekk ci toom ak santam dal leen ak jàmm ci xibaar yi ci télévision du Saloum bokk na ca la ca gën a coronavirus mi wéy di def ay jéye ci mim réew ba sax ñaari doomu aadama daal di ñàkk seen bakkan ci lu tollook benn fan dong li ñu mën a jàpp tamit bokk na ca fi mu nekk nii Sénégal ñi nga xamante ne ni ñàkk nañ seen bakkan ci doomu jaam ngoro ji ñu ngi toll ci ñaar fukk ak juróom bi corona bi dugg see ci réew mi te léegi tay ci Sénégal eh, lu tolloog eh, junni ak eh, téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett doomu adama lañu défal test ci ñooñu téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo ci amé doomu jangoro ji waye ñu rek ak nekk ba seen kër yi léral yi ak directrice bi yor walum santé lay nekk Marie Xemes Ngom Ndiaye ci biir xibaar yi leneen lu soxal xibaar bokku na fédération des associations des eh, des écoles coraniques di kurel nga xamante ne nii qui ëmb daara yi fii eh, ci eh, Sénégal ñoom nak ci session kaolak ak dal dinañ joxañ ministre bi yor jëwriñ yor wàllum famille ministre de la famille ñoom daal li ñu xamle moom mooy moom moo bëgg a tëj daara yi fi nekk ni jaarale ko ci coronavirus reportage bi ñu Ramadan di koor gi tey dina ñu mm, amalap laaj ci fukki fan yi nga xamante ni moom moo jiitu yan ngëneel ñoo ci am ak lan la ci buur bi dog do wax lan la ci eh, digal eh, jaam yi ñu def ko loolu mooy li nga xamante ne ni moo gën a fës ci boppu xibaar yi dinañ ko ndar képpekk xibaaru bitim réew mbokk yi boo ñu mayee tuuti nopp ñu dikk ak yéen ci yaatal yi. salaamaaleykum at beneen yoon comme ni ñu leen ko junjee rek ci bopp xibaar yi coronavirus wéy di def ay jéey ci mim réew surtout ci euh, fan yi nga xamante ne nii ci la ñu génn ñuy jàpp rek ne lu tollook ñaar fukk ak juróomi doomu aadama fi mu nekk nii ñàkk nañu seen bakkan ci doomu jàngoro jàngoroy coronavirus fii ci biir réew mi tey ci ajjuma ji yem mbokk fukki fan ak juróom ci weeru mais ci junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett test yi nga xamante ne nii def nañu ko jëmale ci wàllu woowee téeméer ak fukk ak benn ñoo ci amee doomu jàngoro ji ci téeméer ak fukk fukk ak benn yoon nag téeméer ak euh, fukk ak juróom ñeent ñom ñoo nekk ay cas contact ñom lañu duppé ka contact am ñaar ñu ci xamantene ni ka communautaire lañ leen di wooyee waaye tamit ñu japp né lu tollok ñen fukk ak juróom ñett ci ay doomu adama wér nañu ba ñibi seen kër léral yi ak Marie Xemes Ngom jaay di directeur bi ñu dénk walum santé ci bésu tey bii di àjjuma fukki fan ak juróom 6 mois de mai 2020 jot nañu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 mu nekkoon kàdduk Marie Xemes Ngom Ndiaye euh, di directrice buñu denk lepp lu jëm ci walum wér yaram euh, fi ci Sénégal leneen lu soxal xibaar bokku na ci euh, wayjuru nongo yi nga xamantene ni njàqarek tiis tiss lañu am bi ñu ne seeni doom dañoo wara a wat ci l'école ba waye nak amuñu benen yoon rek budul jël yoon yi nga xamantene ni mom la njiitu rew mi diglé dina nongo yi wat ci l'école ba nongo yi nekk ci classe d'examen yi le 2 juin Bidigno, suis di ki président de l'union régionale euh, des associations des parents d'élèves fi ci diwanu Kaolack di Alphonse Diégane, Thiaré mo xamlé kàddu yu ni mel ñu tewlay kaddom ci micro Adama Camara may nangu nangu go xamné dalu sama xel ñaar rek la bu sa dama xamone ne feebar bi buñ fi amaat bu fi amaatee weer xabal ñu daan naa bokk ci ñiy taxaw ne euh, kilifay réew mi tëjaal tëjaaleel école yi nang leen tëjee woon ba weer wi jeex bu ma leeroon ne ñaari weer sax buñ ko xamee ci ci kanam feebar bi jóge fi daan naa mën a taxaw tey ne lii xanduma ci waaye ci li borom xam-xam yi di junj te yeguñ ci feebar bii mën naa dem ba jegi atum njàng deux mille dix neuf deux mille vingt mii ñu nekk ba tam dug ca tàmbaleem atum njàng deux mille vingt deux mille vingt et un bu feebar bi demoon ba ba ba ba novembre décembre dafay dugg ci atum njàng ma bu boobaa ñii ñu doon xaarloo demuñ fen benn at ñu tardé ñu ñu tardé ko ñàkk ko beneen at ñëw tàmbali ko te mu doon li ñuy wax euh, delloo buum ca booy booy leneen lu soxal xibaar bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy liggéey ci abattoir yi maanaam ca seeraas ya fa ñu rayee gàtt yeeg jur yeeg li ñu mel ba ca nekk nag bërëb ba ca nekk foofu foofulee ca Koundam ñu ngi ñu xamal fi mu nekk nii liggéey ba doxul dara dara waaye daal ñoom seen bërëb ba jël nañ bépp matuwaay ak jumtuwaay ngir xeex doomu jàngoro yu coronavirus ba sax ñu ngay jëfee lépp loo xamante ne nii rek ay digle la yu jëwriñ ji yor wàllum wér yaram daal di digle ci seenu bërëbu liggéeyukaay yooyu le Cissé Malick mooñ ci indi ay leeral. comme yeneen këru liggéeyukaay yi nekk ci bit réew mi les abattoirs de Koundam ñoom tamit jàngoro ji nag laal na leen bu baax foofee nag yëngatu yi wàññeeku na bu nu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni nag ñooy liggéeykat yi loole nag li ko waral du lenn lu dul mbas mi di coronavirus. Euh, comme ñëpp ñu ko dundee rek euh, dundu boo xam ne ànd ak jafe-jafe euh, jafe-jafe donc. boo xoolee abattoir bi. Euh, ci temps normal ñun cinq heures du matin la ñuy xëy wàcc wàcc trois heures euh, avatar bi euh, li muy am ci béy xar par bés mën na cent cinquante sa cent cinquante cent soixante am par jour am ñaar fukki ñaar fukki nag par bés donc nii nii nii nii nii fii wàññi ko doon baax baax a baax donc actuellement ñu am une moyenne de cinquante francs par par jour pour xar ñu am par exemple dix ak quinze nag par bés kon Eh, liggéey bi feeñ feeñ na ci hôpital ah, ah, bi. fii nag cet gi dañu koy bàyyi xel bu baax comme rek ni ko ñu seen xam-xam màcc ci wàll bi nu mel digle ngir rek mën a moytandiku mbas mi di coronavirus. comme ñun tamit dañu jël motaay comme ñëpp donc ñu mettre yoo xam ne euh, comme ni ko gars yi donc raxas raxas ay loxo donc sol ay masque donc ñun aussi euh, comme ñëpp jël nañu seen motuwaay euh, pour hygiène bi parce que ñun tamit ñun ndaw la ñu donc même bu dul mbas bi donc euh, dafa ànd ak hygiène hygiène. yées fukki fan rek des ci korite gi ñoom liggéeykat yi nag am njàqare li ko waral nag du lenn lu dul la ñu doon am bés bu yàlla sàkk lañu gis ne wàññeeku na bu baax ci kanam loolu yëpp nag ñuy ànd ak xel mu dal waaye itam respecté ndigal yi comme nu mu tukkee ci ñu seen xam-xam màcc ci wàllum wér gi yaram ngir rek mën a moytu mbas mi di coronavirus Malik Dramé comme nous nous fédération des associations d'écoles coraniques du Sénégal Nyom Merbo la ñu def seen mer googu nag ku leen ko yóbbee moom mooy jëwriñ ji nga xamante ne ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum njaboot gi jigéen ñi ak xale yi ñoom daal ñu ngi duut baaraamu tuuma jëwriñ eh, ndaw sa Ndeye sali Diop Dieng ne eh, moom day profité ci coowal coronavirus bi ngir tëj ci yenn daara yi eh, di ñaawlu doxalin bopp bu baax a baax kii nga xamante ne ni moom mooy seen njiit di Mamadou Lamine lamin ak collègue am yëpp nag ñu ngi daal di. di wax nguuru Sénégal ñu jë xoolaat bu baax a baax doxalin bi nga xamante ne ni mu ngi kaa jëmale ci daara yi nekk ci Sénégal yépp amal nañu àpp point de presse démb ñu teew lu leen. mer ba foot lañ def yooyu la jàngalekatu daara ci service ministre de la famille de la femme du genre et de la protection des enfants yooyu la jàngalkat alxuraan ndax dañoo jàpp ne dañu bëgg a profité ci mbas mi lay nga xam ne dugg na ci biir Sénégal ngir tëj yéen daara yi. gannaaw bu ñu ci dëkk yu bari Sénégal ñu toggal dongo yi communauté bi di leen jox ñu toggal dongo yi di leen jox ci biir daara yi gannaaw bi suñ daara yi defee ay effort yu mag pour li ñu am yëpp ñu génne ko ànd ak dongo yu dunde ko ba toog seen biir daara ñi nga xam ne ñoo yàgg yore ay projet yoo xam ne li ko tax a jóg mooy éradiquer système enseignement coranique classique ci Sénégal te ñu xam leen profité situation boobu ak jafe-jafe boobu ndax ministre bi da nga euh, waxi président de la république ci façon boo xam ne bokkul la dama ko waxee ba fexe ba tër ba ba ba élaborer benn plan d'action suñ sukkandikoo ci fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal ñu jàpp ne dañ leen yàgg a singili ngir xeex sa njàngale moom li Mamadou Lamine Fall ak mbooloo bi mu àndal di woo nguuru Sénégal mu gaaw ut solution ci mbir moom li mbala mu ëpp loxo ñooñu le sax dem ba di tekku ñi nga xam ne ñooy def mbir moom li fas yéene defal leen ay ñaan fédération bi tëral na benn plan d'action parce que bu yàgg ba tey ñu ngi leewaatoo ak ñoom di wax ak ñoom bu njëkk bi mooy danañ dellu bëgguñ koon def mais loolu jël nañ décision bi te ñu déroulé nañ benn plan d'action national dans les dans dans les quatorze régions du Sénégal ñu jeqwaat ubbiwaat waxande yi nga xam ne moom la ñu mag ñi bàyyi woon secret yi nga xam ne moom la ñu mag ñi bàyyi woon ñu jëfandikoo ko bëgguñ bëgguñ ci woon egg mais loolu il dañ koy def danañ jeqi waxande yi nga xam ne moom la ñu mag ñi bañ a yore daa démb mag ñi ñoraam fal ñoraam fole buur bu ma saan dugg seen pénc bu la neexee ñu fal la loolu buñ buñ buñ buñ buñ foog ne mukk loolu léew fi de mi ngi si suñu loxo mi ngi suñu loxo ku ñu bëgg a duma mën nañ laa duma ñooñu leen sax di xaar président de la république Macky Sall mu gaaw a dugal loxoom ci mbir moom lay bañuñ ba génn ci mbedd mi ñaxtu ngir jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci seen yooyu lay daara tak ngërëm ñeel na ko moom Ibrahima Ndour mi ñu indiloon reportage boobule ñu wax addu jëm ci wàllum euh, korité feetu korité fi mu nekk nii li ci des matatul euh, daanaka fukki fan télévision du Saloum ànd ak ay reporter am dem ci marché yi nekk euh, ci biir Kaolack xool jaaykatu piis yi naka lañu ñu dundee jamono ji ñoom nag li ëpp ci ñoom li ñu xamle mooy fi mu nekk ni coronavirus dalee naa yóbbee ay jafe-jafe yu métti métti ndax mësuñu mënatuñoo gis client xaalis euh, Ramatoulaye loo somb moo demoon seeti leen. lu des ci korité 2020 matatul fukki fan waaye mu mel ni bu xonte bu ñu fa namoon daan gis euh, bu ñu tolloon ci jamono ji gisaguñu ko ci jaaykatu tissu yi. waaw affaire bi moom moment bii nii vraiment ni doon yëngoo bu njëkk ak euh, moment bii nii ça fait deux vraiment parce que mën nañu wax ne korité daaw moo gënoon yëngu ne ko ne korité ren. par rapport ak euh, Covid 19 bi ñi nga xam ne ñoo ngi ci vraiment mën nañu wax ne moo empêché clients di ñëw ni ñu war a ñëwee waaw loolu moom constaté nga ci marché bi. njaay mi aussi parfois day yëngu nii lay def day day day kii daal am tey mu dox suba du dox noonu lay noonu lay demee. looleen nag dara waralu ko lu dul ñàkkum xaalis ak jàngoro ji di coronavirus. ñu ngi sant yàlla julli ci Seydina Mohamed parce que jullit da ngay nangu nattu. mbas mi yàlla moo ko wàccee ñun ñëpp dañ koy nangu ñu ngi sant yàlla julli ci Seydina Muhammad di ñaanal ñi mu dal yal na leen yàlla may wér ñi mu dalut yàlla bu leen dal ci barke Seydina Muhammad sang-sang waaye ba lii wàccee wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ cee boole gëm yàlla di respecte li nga xam ne nii moom la suñ gouverneur tëral ak suñuy préfet ak li nga xam ne décret bi nga xam ne dafa jóge ci président de la république donc Covid 19 bi yàq na lu bari suñu liggéey parce que doomu aadama yi amatun loo xam ne ni mën nañ ko jëndee marchandise donc ñu ngi teg suñuy marchandise jaayun waaye dañuy xam ne mbas moo xam ne nii àdduna yépp la laal ñu sante ko yàlla rek julli ci Seydina Muhammad waaye métti na torop torop ku si nekk loo lekk ak loo naan nga tal waaye alhamdulilah rabbil alamin ren jii nag benn commerçant mënul woon génn jënd marchandise mën a am itam ay tissu yu génn bees ndax ndogal yi nga xam ne daal jëloon nañ ko ngir xeex bile jàngoro di Covid 19 ñenn ñi nag ñoom dañuy jàpp ne bagage am na waaye client lañ dul gis benn yoon. wax dëgg yàlla gis nañ ñu bopp parce que toog nañ deux mois liggéeyuñu bi ñu reprendre léegi dimanche la mais boobu ba gisuñu client. yaa ngi ci tombé ay 1 mètre la ñuy jaayee ki ay genn wàll mètre gisuñu kenn daal marché baa ngi nii wéet waaw 2 heures 3 heures ñu daal di wàcc maanaam yokk bi sax de tane tan tane na si ñun de mais bu heure bi di waaj a jot ni 2 heures maa bi dootuñ gisati benn client ci marché bi benn client dootul ñëw si marché bi ñun ñëw fi toogal suñu bopp rek ba heure bi jot ñu ñibbi ah di ñaan yàlla rek feebar bi yàlla nañu ko yàlla gaaw dàqal. parce que ñun mënatuñoo faj suñuy soxla lii la ñu amoon di ko suturloo ñu ngi ñuy toog gisuñ dara daal maanaam. Korite ren gi nag nar a ute loolu ak yi weesu ndax jàngoro bii la nga xam ne tax na kenn mënatul dem kenn mënatul dikk ba noppi sax soo xel li nga xamante ni moo di koom-koomu réew mi Ramatoulaye Lo Samb Korité ren gile euh, nara euh, nara nara donc kii ak yi nga xamante ne nii nara wuuteek yi weesu euh, loolu lañu ñu tailleur yi nga xamante ni ñi ñoo nekk biir Kaolack daal di xamal bi ñu fa demee ñoom daal li ñu fa nemmeeku ñoo mooy fi mu nekk nii ñaw masque moo gën a yomb ci gis ñaw bu leen doomu aadama indi indil rawatina jigéen yi nga xamante ne nii dañu doon faral di ñaw lu ay ñaw yu bëree bëri bu événement yi ni mel di jublu see ci réew meeg yi ni mel mu mel ni Korité gi nag gisuñu gisaguñu ci seen bopp dara dara dara boo demee seen place yi li ci ëpp da nga leen di fekk ñuy ñëw ay max ay masque ñu teewlu reportage wu Adama Aïda Camara ay fan rek des ci li nga xam ne moom moo di korité atum deux mille 2020 ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di tailleur yi waxtu wi daan leen fekk ñuy ñaw ay tissu ni ki ren ji nag ak mbas mi ñoom seeni yëngu-yëngu dañu koy gën a amal ci defarub li nga xam ne moom moo di ay masque mu nekk jamono joo xam ne métti na ci ñoom lool ñoom lu ñu gënal feebar du am ba masque du am ñuy ñaw suñuy ñaw comme nañ ko doon ñaw robb yi tay baas yi ndokel yi xaftaan yi ñu moo ñu gënaloon ko ne feebar am ba ñu nekk ci ay masque di ci liggéey su feebar amee nag mu nekk loo xam ne yàlla moo ko dogal ñu mu tombeek période boo xam ne ni période korite la masque yi remplace ko dañuy doon ay jullit sant fa yàlla te xam ne yàlla mooy dogal lu ne fee moo fa doon indi wërsëg fii moo fi indi wërsëg kon wërsëg bu ci ñëw rek yàlla na ñu jik quoi feebar bi yàlla jëlee ko fi ci jàmm ci barke yonte bi quoi mbas mi la tax askan wi soobuwuñu ci ñëw ay yére waaye ñenn ci ñoom dañuy faral di ñëw rek ngir lu ñu bëggalee seeni njaboot client yi moom par benn benn rek ay ñaw xale ay xam nga rek yaa ma gën a wax ay garambu boog yooyu noonu daal moom la ñuy liggéey mais vraiment affaire bi daal doy na waar daal daana gën a neex nii wax dëgg yàlla waaw daana gën a neex nii wax vraiment métier tailleur nag nekk na loo xam ni mbas mi daf ko laal lu bari rawatina ci korite gi ñu jublu ah, mën nañ wax ni que impacté wu na si tuuti parce que ñaw yi bëreetul te ay quelques ñaw rek la ñuy am par semaine feetu korite atum ren dootu ko fàtteeti ndax jamono ji ñu bëri ci askan wi li leen gën a soxal bokk na ci nan la ñuy def ba mucc ci mbas mi Aïda Camara cant ngërëm ñeel na la leneen lu soxal xibaar yi bokk na ci reportage bi ñu leen di jagleel jëmale ko ci euh, wàllum euh, weeru koor wi ñu nekk ak ngëneel ya ca nekk ca biir mu mel ni nag démb ci alxemes ji ci lañu ñu nar képp ñaar fukki fanu euh, koor gi ñaar fukki fan yooyu yi nga xamante ne ni ñu ngi kaawoor mu mel ni sax ak njéggal mun na leen cee fekk ci bépp bàkkaar boo xamante ne nii mos nañ ko am waaye nag loolu day cay day day day bokk rek jullit yi nga xamante woor nañu ñaar fukki fan yi ba mu mat sëkk ñu teewlu Malick Dramé leeral yi ñu ci indi la ci reportage bi lay ci alxames ji jullit ñi di ndar képp ñaareelu fukkeelu fan bi aaju ci weeru koor bi loole nag doon loo am solo gannaaw rek bi nga xamante ni jullit bi mën na ci am njéggal ci borom bi kon ñu ci parti almaghfira bi muy njéggal e, njéggal na ku nekk daf koy soxla ndax yow mënoo assuré ne li la yàlla doon def loo yëpp def nga ko man ma assuré ne li ma li ma yàlla sant yëpp def naa ko kon sunu jëf yi ñu doon jëf li ci am ci ay rëcc rëcc li ko mën a gunge pour mu baax mooy li nga xam ne mooy almaghfira ndax nit su fekkee ne am na njéggalu boroom e, su boobaa wërsëg daf ko yomb su boobaa gudd fan da ko yomb njaboot daf ko yomb addunaam dafay neex. waaye nag ngir leeral ñoom nitu diine yi di xam ne rek ne loolu nag mi ngi soxal ñi nga xamante ni nag jot nañu woor ñaar fan yi jiitu ci koor gi. njéggal la mais ci kan parce que ngay gis benn waay boo xam ni bañ ooree ba léegi ma ngay lekk di naan guddeeg bëccëg ba pare bëgg nag buñ ne njéggal mu ne moom njéggal bi am na ci déedéet njéggal bi mooy ñi adhéré woon mooy ñi nga xam ne bi weer wi feeñee um nañ di oor ñooñu ñooy am njéggalu sunu borom waaye yow mi nekkoon ci lu la neex maxvira bu moom doo ci bokk te yaakaar naa ne nag li ñuy tooñ sunu borom ni mu bëree su ñu amul njéggalam soo sàgganut mën naa yóbbu ne safara te yàlla nañ ci yàlla musal sunuy ndar képp ñaareelu fukkeelu fan bi aju ci weeru kor bi mu mel ni nag bëri na lu ñu ci digle sarax jëmale ko ci ñi nga xamante ni nag seen doole demeewul ni waaye tam ndimbalante gu am solo ci diggante jullit ñi bu nu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni nag ñooy ay nitu diine xibaaru bitim réew daañu dem foofule ca Italie nga xamante ne nii rek li ñu fa nemmeekuwaat mooy virus baa ngay wëyaat di defaat ay jéeya li ñu nemmeeku ci tey ji rek moom mooy lu tolloog ñaar téeméer ak euh, fanweer ak ñaari doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci jàngoro yo coronavirus waaye balaa loolu ñu dalee ko ca Allemagne yi nga xamante ne ni ñoom ña ngay def seen kéemtalaayu kàttan ngir suqaliwaat seen économie ba maanaam seen koom ba ngir jafe-jafe yi nga xamante ne ni corona moo leen ko yóbbee Alioune Diagne. ci Italie bilan baa ngi yokk nemmeeku nañu tey jii du tollook ñaari téeméer ak ñeent fukk ak ñaar nit yu faatu ci. 24 heures yi ci àjjuma ji fukki fan ak juróom ci weeru mais mu yóbbu nag lim bi ci lu tolloo ko fanweer ak benn ci junni yu tegal juróom benn téeméer ak fukk nit yu faatu ci mbas mi bi mu duggee ci réew mi ak léegi lu ñeel ñi ñi nga xam ne nag jot nañu am ak jàngoro boobu toll nuñ ci ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett ci ay junni yu tegal juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett li soxal nit ñi nga xam ne ñu ngi leen téye ci Sowétas yees na junni ci jamono ji gouvernement bi nag muy ngi doxee ndànk-ndànk donte sax pression bi métti na lool bàyyeeku ci président de région yi ngir nag ñu daal di def déconfinement ci réew Allemagne moom mi nga xam ne mooy koom bi gën a ràññeeku foofu ci biir orop am na dellu ginnaaw lu tolloo ko ñaari poñ yu tegal ci produit intérieur brutam ci ñetti weer yi nga xam ne nag moo jiitu ci at mi boo tax nag bilan bi nga xam ne nag luñ ko siiwal tey ci ajuma ji moo ko xamale

amoon nañu mbégte àndoon ceeg yéen jaajëfal leen gërëm leen sant leen bu baax a baax ñaan yàlla def jàmm ci Sénégal def ko ci àdduna wërngal këpp jàngoro jile di coronavirus yàlla génne ko ci réew mi ca nu mu gën a gaawee jaageen jëf bu subaak jàmm incha allah.